la émission faral puisée au cœur de la Casamance dans une nature sauvage et parfaitement préservée, filtrée naturellement par plusieurs couches de sable fin qui lui confèrent une minéralisation équilibrée et une douceur exceptionnelle, la Casamanceaise est une eau minérale naturelle, légère. J'aime qu'elle soit issue de la nature comme un cadeau. La Casamanceaise, naturelle comme j'aime.

ñu xam ko ci côté technique ak tactique muy wane loo xam ne tey performance boo xam ne tey boo xoolee parcours am yàggul lool mais wane na jom ak fulla lu bari ci football Pape Abdou ñu ngi lay nuyu. waaw salaamaaleykum Amina maa ngi leen di nuyu di am contentement tamit ci invitation bi bu ñu xool euh, sa parcours mu nekkoon tey loo xam ne yàggul mais nga wane ful lu bëri tey ba ren nga ñëw jaraaf mais nga bokk ci joueurs di gën a régulier. waaw booy xool sama parcours Euh, équipe yi ma joué Ligue 1 bëriwul. trois équipes la ja euh, jaraaf yi mooy sama troisième équipe mais boo xoolee su may joué yëpp damay euh, damay damay def ay performance chaque année. Mhm. match yi yëpp maa koy joué quoi. bu ma ñëwee tamit jaraaf fii doon na boo xam ne équipe bu mag la te tamit équipe bu ambitieux la boo fi ñëwee performance mooy tax ngay joué man tamit loolu laa xam moo tax chaque jour damay liggéey. Mhm. loo xam ne nii dinaa fexe le tout pour di ñëw jaraaf mais bëggoon nañ xam aussi say début parce que dégg nañ ci ay wax ne que ni da nga toj euh, nawetaan yi dem nga Kayor toj nawetaan nekk fa meilleur joueur nekk fa meilleur buteur ñu recruter la mën nga ñu expliquer tout sa début waaw sama début bi may débuté avant may jouer Ligue 1 Ligue 1 dama demoon euh, Tivaouane doon fa jouer nawetaan foofu noonu par la suite fa laa jël meilleur joueur meilleur buteur nawetaan foofu après président Kayor Foot bi si la ma woo ne ma kaay nga signé contrat Ligue 2 boobu sax Kamu sax ay ligue 2 ay ligue 1 yooyu noonu. xamagoo woon luy contrat professionnel. waaw luy contrat professionnel parce que jéem a woon benn championnat. nawetaan mhm. rek laa doon jouer mhm. quoi. après si laa dem waxtaan ak Cheikh sama papa ak samay grand. ñu ne mhm. ma demal nga jouer parce que dama bàyyoon jàng ngir football quoi. après fa jouer un an bi saison bi saison bi si topp si dem Linguère quoi def fa ans soog a ñëw après Jaraaf fii quoi. soog a ñëw naka lañ recruter Ndiambour dama doon joué fële nan la jóg Saint-Louis avant moi joué Saint-Louis sax na naa na étant tamit. ok parce que bima ma Ligue 2. kon joueur nawetaan nga woon. waaw joueur nawetaan na na étant joueur ma ko ok parce que parfois pour bo amul ñu lay outal ay test ci club bi fa nga jéem jouer na étant pour gaay yi gis la pour nga mëna jouer ci club bi man sama ambition lool la woon. moy mhm. da nga né won comme aw ma ay test naa fexe toj nawetaan yi pour mëna gën génn. waaw joué ci nawetaan yi jéem def ay performance su ko defee club bu lo wooyee nga mëna dem. boo xoolee sax bi may joué Louga bu euh, jamono bu Louga. dama mhm. fa joué nawetaan doon dem Ñambur. année boobu après mu jëw ma dem ma dégg ay test Linguère de Saint-Louis après si laa dem def test yi. Mhm. yàlla def ma donc jour bi ma fa ñëwee jour bi ma defee test yi si jour boobu la ma lan ma signal contrat. boobu Linguère mi ngi ban Ligue 1 wala Ligue 2 waaw mi ngi Ligue 1. mi ngi Ligue 1 mooy sa première équipe Ligue 1. ok mm-hmm. naka nga adapté won parce que ñëw jóge nawetaan rek eh, ada ñëw adap eh, duggu ci club ligue naka nga adapté won ak équipe bi waaw bo xolé e football bi ben la rek mm-hmm. té tay ji bo xol ligue eh, 1 amna niveau té tamit mooy niveau bi gëna supérieur Sénégal fi ni té tamit mais football bi du changer mais nit mom bo xamé li nga bëgg ak fi ngay tek ci tank mom euh da nga nan da ngay ñëw rek def li nga wara def après le game mm-hmm. même sax bu metté da ngay ñëw nga gérer def li la war après mooy loolu quoi man loolu laa ko jàppee woon. ok dañuy ñëw si jaraaf tey jaraaf nekk club bu mag ñu xam ko ci compétition africaine yi aussi mm. euh, championnat Sénégal muy wane performance ba nga ñëw. Mm. ren nga fi ñëw mm. parce que daaw yaa ngi woon Ndiambour ñëw fi ren bokk ci 11 yi. bokk ci joueurs yi gën a constant. tey naka nga liggéeyee loon loolu avant nga ñëw fi loolu naka lañ la recruter d' jaraaf noo ñëwee jaraaf. waaw jaraaf ni ma fi ñëwee mooy euh, daaw doon daje ma si te en plus ñoom peut équipe bi ñoom bëgg nañ ay joueurs yoo xam ne dañuy dañuy def ay performance championnat bi mhm. te daaw booy xool ñàmbur euh, def nañ fi performance boo xoolee ñun ñu fa nekkoon man Matar Ndiaye ak Melo yëpp bu ñu dajee ñoom def nañ ay match yu baax te tamit doon nañ def ay match yu baax ñàmbur mhm. léegi ñoom ñu nañu bi championnat bi jeexee un an lañ si ñoon foofu ñu proposé ñu ay contrat fii nii contrat yi arrangé ñu tamit te ñam euh, jaraaf du la woo ngay doon joueur nekk Sénégal di nekk fii di am xel ñaar wala ñett. Mhm. parce que doon équipe yoo xam ne ñoo gën a màgg Sénégal. Mhm. léegi nag après ma waxtaan si ñoo si war a waxtaanal yàlla def ma ñëw signé fi contrat bi ma fi ñëwee tamit doon équipe boo xam ne li ma doon fi séntu yëpp maa ko fiy gis. Mhm. parce que performance pour ngay jouer du ci gëstu du ci kenn ci jour bi lay débuté te tamit boo ñëwee da def li la war rek toujours ngay def li la même boo xamante wul woon ak ñoom si équipe bi sax xamante ngeen si championnat bi. Mhm. parce que jour championnat ñu si bëri xamante nan en plus ñu si bëri dëkk nan moo tax bu sa jeu aussi que boo xam ni polyvalent tey poste bu ñu la teg ci côté attaque bi yaa ngi fay dox. Hmm. naka nga liggéeyoon loolu ak yow euh, ba ngay door a nekk joueur ban poste moo nekkoon sa poste nga ne non fii moom. Hmm. bu ñu fi tegee rek dama fi football. waaw bi muy débuté football. Euh, six laa doon football quoi. Mhm. milieu terrain laa doon football. Euh, muy profité di nuyuwaale sama kër sax bi nga xam ne moom moo formé école football muy Doudou Ballon ñu koy wax Doudou lii la tudd mais ñu koy wax Doudou Ballon école football Abdoulaye Diakher. Mhm. bi may débuté foofu numéro six laa doon def après par la suite xam nga rek ma changé poste dem jeu excentré te tamit booy jeu excentré moom. boo amee tuuti technique rek war nga mën a jouer attaquant pointe parce que loolu yëpp attaquant pointe mooy excentré excentré mooy football bi léegi nii faa nga doon polyvalent pour mën cee génn. Mhm. moo tax te da ngay nangoo adapté wu la coach bi di euh, liggéey si yow rek pour mën a def performance quoi. Mhm. ñu gis ni si biir terrain bi aussi côté attaque bi sax da joxe eh, bon effort yu bëri ba tey bii yu parfois am na bii yoo xam mhm. ni toujours peut-être si sa engagement la ak bëgg joxe lu bëri. waaw loolu am na parfois booy def ay effort yu bëri. parfois lucidité bi du du bëri moo tax parfois ñu doon manqué occasion yu bëri mais buñ ci liggéeyee nii ak ah, naka nañ feex Siré Dia moo la te kenn du ko présenté fii ci championnat du Sénégal. effectivement waaw te moom mu doon si jàppale moo tax euh, bu ñu taxee bu ñu tiimee kaa rek dañuy wax ne ñun ngeen lucide constant def ndànk mm-hmm. parce que boo duggee surface même bi da koy wax seet gay mm-hmm. boo duggee surface euh, ki lay marqué moo war a tiit mais du jour bi jeu quoi ci liggéeyee bon nañ si résultat quoi te di ñaan yalla li des championnat bi ñu duggal ci ay bi yu bëri quoi. amin mais côté technique tactique tay la moy sa point fort ci biir terrain bi. sama point fort man amna vitesse té tamit mën naa téye bal quoi. Mhm. Mhm. yaa ngi dugal aussi lu bari waaw waaw maay duggal dugal. ok instant yii dugalagum naa cinq bi quoi. dugalagum nga 5 bi. waaw waaw ok est ce que jotagum nga am aussi ay euh, sélection waaw amna sélection mais U20 la woon quoi avec Youssouba Dabo bi mais. Puisée Puisée au cœur de la Casamance dans une nature sauvage et parfaitement préservée, filtrée naturellement par plusieurs couches de sable fin qui lui confère une minéralisation équilibrée et une douceur exceptionnelle, la Casamance est une eau minérale naturelle, légère. J'aime qu'elle soit issue de la nature comme un cadeau. La Casamanceaise, naturelle comme j'aime. La Casamance 16 existe en 10 litres, 1 litre 5, 60 centilitres. Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux Casamance 16. ñun ñëpp di jouer fii ñaanoon li ñuy rêvé mooy mm-hmm. jouer équipe nationale. parce que tey jii nii dafa doon loo xam ne couleuru dëkk bi la loo xam ne dañ koy défendre. Mm-hmm. te baax na ci CV jour quoi mais tamit bu ñu génnee li si gisoo sa bopp rek da ngay dem nga liggéey waat parce que tey kër bi jël foofu noonu moom lenn rek la mën a gis mooy ñi nga xam ne moom ñoo ñoo koy amal apport. Mm-hmm. te tamit parfois da nga koy nangul ay. sélection am li muy def. Mhm. tamit bu defee loolu da ngay gën a continuer rek nga liggéey xam ne boo jotee rek après day yomb quoi. day yomb mais papa est-ce que yaa ngi naan Casamance. oui ndox bi maa ngi koy naan bu baax sax parce que doon na ndox boo xam ne. Euh, dafa oyof. Mhm. te tamit baax na ci récupération bu baax quoi. ah dama ñëw rek seen joueur yi kenn ku nekk Amina jox ma ndox bi jox ma ndox bi daal ñoom ñëpp ne ma Casamance ñii naan 10 litres laa yore ñii naan 1 litre bi. billaahi ndox bi ngay indi yëpp ñoo ko naan surtout Diallo li mu ci naan bëri na trop quoi. <laughs> waaw daa mel ni secret bi ci nekk li joueur yi wax rek ndox mu neex la sell na xam nga mhm. dee leen ko jënd dee leen ko consommé yéen joueurs yi surtout sportif yi ñi ngi def basket leneen ak leneen yëpp dee leen jël eau la Casamance ndox bu sell la oyof na te am na secret bu ci nekk moom waaw loolu moom joueurs yi xam nañ du ma ko wax nag mais ku koy naan ku ne rek dina xam ne Casamance moom yaa ngi secret xam ñëw euh, si coté agent est ce que tey am na koo xam ne tey mu ngi lay suivre parce que tey joueurs yu bëri Sénégal boo gisee ñu ngi commencé di ngañ agent yi est ce que hmm. yow lan wax ci loolu xam nga agent joueur moom parfois am na fi sax mais pour parfois nga daje see ñoo xam ne nii dinañ la gis bëriwul quoi mais euh, parfois comme li nga wax ni jori fii dinañ daje ay agent yoo xam ne nii doo comprendre sax mais da ngay def li nga war a def te tamit man fenn laa ko wéer quoi tey jii boo waree mhm. jógee Sénégal mhm. bu yàlla tuddee na li nga dem moom da ngay waaw muy agent yóbbu la muy keneen ak keneen yóbbu la billaay est-ce que nga am bon ay conflit c'est-à-dire ay problème ak agent non non mosuma am ay benn problème mais amoon naa ay proposition yoo xam ne ay agent fini mhm. ay contrat yoo xam ne dama ko am na contrat boo xam ne dama ko waroon signé mais problème bu moo tax signé ma ko woon mooy euh, Youssou bu Oslo ma koy félicité sax si équipe am bi yeeg euh, mhm. Ligue 2 quoi moom lijjanti woon na moom contrat ba mu waroon ko signé mais dama amoon problème mu moo tax signé ma ko amoon problème mu. 18 ans ah, moo tax signé woo woon. mais mhm. boobu léegi ak ren jotagoo am ay contact waaw ba léegi nii maa ngi liggéey mais dégg gu ma ay contact wala dara quoi mais maa ngi continuer di liggéey rek waaw. tey Pape Abdou fan la bëgg tollu ci football. waaw Pape Abdou fi mu bëgg a toll ci football mooy comme joueur yu Sénégal yëpp ñuy rafetoon rek parce que tey jii ku fi ku bàyyi lépp ngir dara moom. Mhm. ñaan nga yàlla signé professionnel quoi ba dimbali ñi nga xam ne ñooy say waajur ak ñi nga xam ne ñoo la wër te tamit boo bàyyee lépp ngir loolu da def effort rek ba yàlla génne la si quoi incha allah te ñaan naa yàlla doon professionnel. ñu gis ni jaraaf euh, ren euh, ba mu jógee si compétition africaine yi. Hmm. gis nañu courbe bi dafa ko fa xaw a wàcc tuuti tey lan moo waral loolu noonu. waaw booy xool euh, football bi comme compétition bi ñu doon jouer Afrique bi ak championnat Sénégal boo xoolee am na différence quoi. Hmm. boo xoolee championnat Sénégal dafa am ay réalité te match yu nekk fii dafa metti trop. Hmm. fii du benn yomb fii boo xoolee match yi ñuy jouer yëpp parfois nga jouer boo xam ne da ngay dominer ba match yi di waaj jéem nga perte ko si ay réalité te résultat yi victoire la wala défaite wala match yi boo ci am rek après da gën a defaruwaat quoi. Mmh, dëgg la ñu gis ni euh, journée yi li si des bër bëreetul est ce yaakaar nga ni tey jaraaf war na mën a jël championnat bi yegg si sommet bi. Mmh. wala aussi jël beneen coupe parce que yéen am na yeneen euh, coupe yi mmh. waaw mais adduna euh, dara impossible lu quoi. dina xaw a difficile trop trop trop sax mais war dañ koy def rek. ba ba fin championnat bi ñu xool yàlla li ñuy jox. te parce ñun ñu fi nekk ñëpp buñ sañoon. championnat bi instant ñu nekk ci première yi quoi. mais yàlla ni ñu la ko defee rek dañuy dañuy gérer. ba pare des na ay compétition yoo xam ne ñu ngi si coupe euh, coupe du Sénégal bi démb lañ doon joué ñoo gagné nga zéro. Mhm. ba pare des nañu coupe de la Ligue. ok même bu championnat bi euh, possible pour jël ka tamit dinañ def le tout pour jéem a gagné benn coupe quoi. ok gis ñu aussi euh, ci côté infrastructure. Mhm. Euh, tey Sénégal actuellement nekk na débat boo xam ni acti en actualité la nekk nekk débat boo xam ne dafa poser problème mooy côté terrain tey lan nga ñu mën a expliquer loolu parce que ñu bëri tey ñu ngi naan du yoon. Mhm. Sénégal tey ak professionnels yu mu am mhm. waroon na mën a am ay yenn terrain yoo xam ne nii tey euh, war nañ ko mën a homologué par la CAF. tey lan nga ñu mën a expliquer ci loolu. waaw boo xoolee ñun ñun xam ne nii ñu si problème mu Sénégal ñoom tiim nañ ko quoi parce que booy xool parfois ñun am nañ ay problème mu terrain mais kon ñoom ñoom ñoo fi nekk pour yor footballu Sénégal te tamit jot nañ ci waxtaan ak yenn dirigeants yi ñoom seen biir. Mhm. ba yenn wax jot na ci am. Mhm. man jàpp naa ñoom bu ñu xoolee bu baax dinañ jéem a xool ñu koy amélioré ba dimbali joueurs Sénégal yi si terrain yooyu quoi. ok parce que waaw jot na quoi ay terrain yu gën a baax quoi. am nañ ay terrain yu baax. mais ñu gën a am yeneen extérieur ñi fa nek ñi prouver yëpp ay sénégalais lan mhm. kon ñun yalla waru ñu mëna taxaw ba ñun ñu am ay terrain yu baax yo xamné moy lool fi Sénégal. ok tay ba équipe moy sa équipe de rêve tay Papa bu doon signé tay bari joueur yi dañuy naan non man Barça Real. Mhm. tay ba équipe tay nga doon xalaat ni war nga fa mëna jouer ngir gëna a man ci sa carrière footballistique. man Real mom Real moy sama équipe quoi. Real ok à part Real. à part Real Liverpool quoi. Real ma ngi koy supporter parce que yag na ko supporter parce que Zidane quoi. Mhm. di naan après Cristiano Ronaldo mooy sama jour bi bi mu jógee nii sax ba léegi maa ngi nekk di mhm. mais Liverpool moom Sadio Mané quoi. ok Sadio Mané parce que sénégalais la sénégalais la te tamit en plus mooy loolu. ok am day sot quoi. ok sa coach ñu ngi koy dégg ñoom ñaar ñëpp mook Sira ak coach Cheikh Gueye. ni mhm. Pape dafa yaru ci terrain bi tey ku nangu déglu la. Mhm. tey lan moo ko indi parce que gis nañu joueurs yu bëri tey. moom côté euh, dañu xaw a indiscipliné ñi ñenn ñi ngeen baal ma ñeen ñi bokk du ñëpp. mais bëriwul tey jou coach yi taxaw naan joueur bi kat si biir terrain bi loo ko wax day déglu nangu na déglu te nangu te loo ko wax tamit dina ko appliquer si terrain bi. mais boo xoolee tey jii nii ñun mënuñu doon footballeur ba pare bëgg doon coach suñu bopp. Mhm. te tamit dafa am xam ne dañ leen leen ci loolu quoi. te tamit man jàpp naa ne bu dee nanga nga doon footballeur te bëggoo déglu ki nekk ci banc bi di la classé bay boo nga bàyyi football quoi moo tax tey jii nii ñoom bu ñu bu ñu bu ñu classé du ñu footballoo lu ñu wax rek dañ koy appliquer parce que moom mooy xam système bi muy teg pour football pour gagner ma seen bu résultat amee même bu nu bu avant ñuy wax zori bi ñu naan kësi bi moo xamul dara mhm. moo tax tey ñu yoon la parfois ñu leen di déglu pour di leen a dimbali ci ñu bëgg quoi ah, moo tax ñu ngi lay jaajëfal bu baax di la wax nga euh, bon nga tàggatoo wax sa dernier mot di la jaajëfal di am contentement aussi mm-hmm. bu baax ci dalal bi ñu la dalal nekk tey jour boo xam ne tey jour bu constant nga jour bu yaru comme ni ko si waxee di la wax aussi pour la suite waaw merci beaucoup damay gën a kontaan rek parce que tey li yombul quoi. Mm-hmm. Mm-hmm. am na contentement bu baax ci invitation bi di wax ne nii la parce que lii day tax gars yi gën a xam joueurs localu Sénégal yi. Mm-hmm. te tamit di di leen gën a suivre quoi. ok waaw ah, di kontaan bu baax. mais mbaa yaa ngi suivre suñu page Facebook Facebook 13 football boo demee Instagram aussi 13 football la ngeen di abonné foofu noonu. parce que tey foofu lépp luy actualité football local wala foot international bi yëpp ñu ko fay def. waaw man maa ngi naa sax si Instagram maa koy suivre bu baax kay 13 football. mais faral sa foot j' que yaa ngi ko doon seetaan avant. yeneen yi waaw maa ko doon seetaan yu bëri waaw kay lu ngeen bëgg xam ci football local bi rek euh, da ngeen di dem 13 TV suñu chaîne YouTube bi ñu ngi fay def ay émission bu émission bu bu bu neex boo xam ne tey joueurs yi bon pour ñu gën leen xamale joueurs yi muy faral sa foot nekk émission boo xam ne tey ñëpp dañu koy demander bañ la ko ba dañuy naan Amina dee ko def 3 fois wala 4 fois si biir mois bi mais ñu ngi siy xalaat te dina gën a neex incha allah bu ngeen demee page Facebook aussi 13 euh, football la Instagram ngeen di abonné YouTube aussi dee leen abonné di partager ngir ñeneen ñi aussi di si mën di jot parce que ñun foot local moo ñu fi téye je vous wax jox rendez-vous à très bientôt et n'hésitez pas à vous abonner li ma leen wax toujours di remercier suñu sponsor Ola la Casamançaise nekk ndox bu sell moo ñuy gunge suñu émission sans su Papa Abdou ñu ngi lay jaajëfal bu baax. vous leen jox rendez-vous à très bientôt. merci les gars. Ola Casamançaise moo leen donne may seen émission faral sa foot